jërë ngeen jëf mbokki wasaare Dakar Midi ñoo leen di nuyu bu baax a baax tey ñoo ngi fii taxaw ki nga xamante ni mooy Ada Fass ki nga xamante ni démb moo doon bëri fête arène nationale ci digganteem ak Tapha Mbeur mais ñu gis démb combat boo xamante ni combat bu neex combat boo xamante ni am ambiance am biñ tuusee ñoom ñaar stade bi ñëpp bëgg nañ ma bàyyi ko mu nuyoo ñu woy waxtaanee Ada nuyu la. ah jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul Jawlax Al Misbah Karafa maa leen di fay di leen nuyu mais ñu gis combat bi bi mu taxawoo yàgg na corona bi ñëw puus ko sa digganteeg euh, Tapha Mbeur coow li bari woon na ñëpp ne woon euh, Ada Fass est-ce que dina ci am sens ñi ne Ada Fass dafa yokk poids ñëpp ne woon euh, Tapha Mbeur moo ci ëpp sens mais nga ñëw démb tous andi ambiance stade bi maanaam duy ko ba mu fees lan moo loon sa diggante yow ak ay supporters balaa balaa dara di xew. waaw samay supporters gàcce ngalaama ndax man aw ma ñu dul ñoom ñoom ñoo tax promoteurs yi di ma fay ñoom dañuy sonn ci waaw maani ñaan maa ngi soñu tamit ñu gën a taxaw seen mbër waaw dina li si kanam mooy dàq lii du dara li lancement la rek. mais ñu gis démb bés bi ngeen nekk ñaari xale. def noonu stade bi daanaka ay mag sax dañu fay bëre te du mel noonu sa diggante yow ak Tapha Mbeur ngeen def noonu stade bi bi nga dugg see gis stade bi fees sa xel ci lan la njëkk a dem. waaw loolu daanaka dafa yombul dafaa jàmbaar la mooy jàmbaar goxam topp ko man sama gox topp ma. dem moom stade bi koo gis xam na ne stade bi fees na dell macha allah. Mhm. mais ngeen ñëw tuus bi. kañ nga ko répété nga lu yàgg wala dafa nekk loo xam dafa ne ci yow. tuus bi moom benn jour laa ko répété man. benn fan. damaa dégg. waaw damaa dégg galañ daal. mais ñu gis dafa tuus yëngal stade bi nga jug dem ci say supporters. waaw confiance rek. confiance laa amoon ak gëm lu ma liggéey. du dara mais démb euh, ñu bari yaakaaroon nañu Tapha mooy xeex. mais bi abi sifflé nga attaqué ko dox ci kawam lan la woon. waaw lu ma liggéey la parce que làmb yi damaa liggéey lépp dañoo pare woon si lépp. mais ñu ci béy dañ ne woon mënoo xeex. non mënu ma xeex loolu man maa amul temps xeex si lamb man gars yi jàpp daan leen ma sant. Uh-huh. ma dégg ñu na xale bu mënee ba yoon xeex xeex amul ci yoon. waa loolu dëgg lool mooy yoon sax. mais démb sa diggante ak dafa am defe naa da ngeen bëri nga kor ko la. Hmm. naka la làmb ji demee. ah làmb yi métti woon na. ndax dafa taxaw mu nekk xale am doole ma dem ma liggéey am doole. ñu léegoo waaw ma coxaas ko mu daw di ñëw ma daw jël ko mu uppercut ma dóor ko uppercut mu sigi ma daw jël ko. mais si nee ko uppercut bi nga ko dóor moo jeexal làmb. waaw dama ko xool dafa sigi mu sigee damay am suuf damay daw jël ko. ma daw pakete ko ma daw pakete ji jeex. mais bi làmb ji jeexee. Hmm. Euh, ñëpp ne jaajëf. mais lan moo nekk sa kanam fi tool waaw instant yi maa ngi déglu sama encadrement ak sama waa staff. ñoom gis naa démb bi ngeen nekkee ci digg géew bi Liss Ndiago ñëw non man maa ngi déglu sama encadrement lu ñu pare ku ñu pare pour bëreeg moom rek man pare naa pour moom. waaw ah, ah, bis ñëwee looyoo. taw ma benn adversaire pare naa pour bëreeg ñëpp laamu laam. lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy amateurs ak ñi nga xamante ni dañ lay bàyyi xel. waaw kontaan si amateur yëpp awaa diaspora bi waaw kontaan naa si ñëpp.